wala ñetti saxaaba yi ñoo àndoon di tukki bañ demee fekk ba ñuy dem ñaar ñi ci ay ay chrétien lañ tuubaguñ kenn ki mooy jullit bañ demee ci seen tukki am ci ñoom kenn koo xam ne faatu na bi muy faatu mu bind ci kayit li nga xam ne moom laa amee ci bagage yëpp bind ko ci benn kayit def ko ci mbuus mi nga xam ne ci la ay bagage am nekk ci mbuus mi nga xam ne ci ay bagage am nekk ba ko ci defee ñam moom ñett ñi tukki mu ngi tudd Badr ibnu waay Badr ibnu Warqa ak Tamimu Daar ak Omar Mawla Amr ibn al-Asi sahmi ñoom ñett ñoo àndoon di tukki badr ibnu warqa tuubagut mu daar tuubagut mawla amr ibnul asi asahmi mooy jullit kooku nag ba mu ko defee moom moo dee mawla amr ibnul asi moo dee bi muy dee mu jël ay bagage yam yëpp bind ko ci benn kayit dali koy dugal ci biir mbuusam da pare daldi ñi nga xam ne ñoo ànd moom mu seede loole na sama bagage yi nangam ak nangam ak nangam moo ci nekk su ngeen demee ñibbi Medina ngeen jox ko diw ngeen jox ko Amr ibn al-As Sahmi ndax mooy sama mawla ndax moom moo war a donn ba mu ko defee gaa yi daldi seet bagage am bi bi mu dee gaa yi visité bagage am gis ci benn jaam jaam mooy mooy këll këll këll boo xam ne daal ñu ngi ko liggéeyee urus ak xaalis xaalis dañ ko liggéeyee ba pare Eh, eh, goromale ko urus ah xoobee ah, ko urus ba mu ko defee ñoom ñëpp ñu daldi di ñoom ñaar ñu dal di d'accord dal di jaay jaam bi biñ ko jaayee jaayee ko ñetti téeméer dal di séddoo seen diggante di des ci bagage nag ñu gàddu ko indiko ko bi ñëwee jox ko Amr ibn laa as Amr na Al-As toog xool xool bagage bi ba pare daldi leen woo mu ñëw mu ne leen sama waa ji xanaa dafa am lu mu jaay ci bagage mi ñu ne ko déedéet mu ne xanaa feebar bi dafa yàgg mu mu am lu mu ci fajoo ñu ne ko déedéet mu ne bon nag ay sàcc ndax ab jaam a ngi nii bind na ko te jaam bi gisuma ko ci bagage bi bon yéen ay sàcc ñu ne ko ñun sàccu dal dem kalaame ko yonante dal am rib naa si dem ci yonante kalaame ko ba mu ko defee yonantu woo leen bi mu leen ooyee nag ci la yàlla wàccee laaye ji laaye ji boo demee ñeenti laaye la yoo xam ne ci loolu la aju laaye ñaari laaye yu njëkk yi mu ngi aju ci tamimu daar euh, ak ak ak tamimu daar ak badr ak badr ibn wa badr ibn warqa ñoom ci ñoom la aju ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo sàcc ba pare te dañuy weddi ne sàccuñ ñaareeli beneen beneen ñaareeli laaye bi mu ngi wàcc ci nga xam ne mooy am ibn eh, ibn ibn al-Asi as-Sahmi ci moom la wàcc ndax moom itam mooy mbokki waa yi nga xam ne dee na te moo ko war a doon de bi ñëwee ñu ne mu dem kalaa leen ak yonent yonent daal di woo leen ñu ñëw mu ne leen nu ngeen naka la ndax nangu nangu ngeen a gëñ parce que dañoo wax ne kuñ tuuma dafay kuñ tuumaal dafay gëñ kii tuuma dafay joxe preuve mu ne ñu ne ko ndax nangu ngeen a gëñ ne sàccu leen ñu ne nangu nañoo gëñ na sàccuñ xéefar lañ du dara ci ñoom ndax xamuñ li ñuy gëm seen yoon nekku ci ñu daal taxaw ci kanam mbooloo mi gannaaw tàkkusaan dal di gëñ ne ñoom de sàccuñ dal di gëñ yonent dal leen bàyyi ñu dem de <coughs> ba leen bàyyee ñu dem nag gannaaw ga jàmba feeñ ca màkka bam mu ca màkka ñu ne ñoom ñaar ñoo ñëw leen ko jaay de ba pare yonentu owaat leen yeneen ñaari laaye yeneen ñaari laaye yi wàccaat ngir indiwaat beneen atte boo xam ne ci la amru ibn as di jotee fan de mu ne yaa ayyuha lazina amanu e yéen gaa yi gëm alquran shahadatu baynakum seede leen seen diggante seede leen seen diggante ida ida xadara ndeem teewee na ahadu ahadukum kenn ci yéen almawtu dee de yéen bala bu ngeen dee al xiinal wasiyati ca waxtu dénkaane isnaani ñaari waay zawa adlin yu borom maandu minkum ci yéen de su fekkee deew teew na yéen a ngi am alal yoo xam ne da ko bëgg a dénkaane mooy nangeen ngeen ko dénkaane ci kanam ñaari nit ñoo xam ne nit ñu maandu lañ ngeen teg ci ñoom seen loxo alal ba pare dénkaane ni ngay def alal ji aw aaxaraani ikki ñeneen ñaar ñoo xam ne min ghayrikum aji tukkee la ci lu seen diine de wala ñeneen ñaar ñoo xam ne bokkuñoo ak yéen diine ñoom itam mën ngeen leen a seedeloo <coughs> in in in in antum dem tukki ngeen fil ardi ci suuf darabtum tukki ngeen fil ardi ci suuf de fa asabatkum te jor leen musibatul de musibam dee taxbisuunahuma da dangeen taxaw loo leen ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal min baadi min baadi salaati ci gannaaw julli tàkkusaan de su ko defee ba min baadi salaati fa yuqsimaane ñu gëñ billaahi ci yàlla inir toptum ndem sikki ngeen ci li ñuy wax laa nen laa nastarii jënduñu wala jaayuñu bi ci moom maanaam ci yàlla sama nan njëkk xaliran gu daa ji néew de sama nan sama nan rek sama nan ñu dal di ñëw yonentu oo leen ñu ñëw ñu leen ne leen acca gëñ leen wax leen lu ngeen wax xéefar moom gannaaw julli tàkkusaan ñu taxaw loo leen xéefar moom kaay gëñ moom yomb na ko ndax xamul ci li muy gëñ lan la ñu daal di koy nekk ne leen gëñ leen ñu daal di gëñ gëñ wallaay ñun defuñ dara yé ñun sàccuñ ñu ngi gëñ ci yàlla ne ñun duñ jël suñ suñ duñ jël yàlla di ko jaaye àddina parce que ñun àddina jarañ jaraluñu ko wax a wax wax wax ba seen kol neex yonent itam dal leen atteel ne leen bàyyi leen ne leen dem leen de ba ko defee ñu dem loolu mooy ñaari laay yu njëkk yi ñaari laay yi ci nopp nag yi ci topp mooy nii fa yoqsimaani tañ gañ billaahi ci yàlla in tabtum ah, waroo kaani di nekk na daa qurba di borom ak jege ñaale de wa wala tëgtumu wala tëgtum bu leen nëbb shahadatallaahi seede yàlla li nga xam ne yàlla ko digle ne seede leen ko ci waxtu leen ko laajee bu ñu loolu bu leen ko nëbb de ida idan inaa ñun booba ñu ñu nëbboo ko idan idan booba la mi na aji bokk lañ ci way bàkkaat yi de ba tey xéefar yi ñooy wax su fekkee nag li ñuy laaj nëbb nañ ko waxuñu dëgg gi ni mu demee nañ xam ne ñun ay bàkkatkat lañ de ñu yonent dal leen bàyyi ñu dem ndax wax nañ li war a wax yépp te yonent moom ci lu àttekat moom ci lim gis rek ci lay àttee yonent gis na fu mu dëgg ngir àtte atte na leen ne leen dem leen ñu dal di dem de ba yàlla da beneen yeneen ñaari laay yi dal wàccaat mu ne fa inosira ndéem yët yët ngeen ala annahuma ci naka ñoom ñaar ñooñu gëñ ba dem istahaqa xëyoon nañu isman bàkkaat su fekkee ñooñu nga xam ne ñëw nañ gëñ nañ ba nga dañal leen dem nañ gannaaw gi ngeen gis ne ñii xëyoon nañ ay bàkkaat fa aaxaraani woo leen ñeneen ñeneen ñaar yaquuma ne ñooñu dañu taxaw maqaamahuma taxawaay seen ñoom ñaar de min alladina ca ñaaña istahaqa xëy na alayhim ci ñoom dénkaane ga al awla yaa way jege ñi way jege ñaale way deejale su ñëw nañ ba nga xam ne gis bu ngeen demee ba gis ne ñii bàkkaat nañ bu ko defee na ngeen oo ñeneen ñaar ñoo xam ne ah danañ ñëw taxaw ñoom itam gëñ ñaar ñooñu nañ nekk mbokk gaañ yi nga xam ne nañ nekk mbokk ki nga nekk mbokk ki nga xam ne moo dee ku demee ni Amr ibn Laas yi nga xam ne moom la moo doon mawlaa ki dee alalam ci moom la ñëw su ko defee moom nañuy owaat bu ñëwee moom tamit dal di gëñ ca place yi ñaar ñi da nga xam ne gëñoon nañ te liñ doon gëñ euh, yàqu na ndax dañoo waxoon ne gisuñ ko sàccuñ ko gannaaw gi ñu gis jaam bi ca Makka gis ne ñoom ñoo ko fa jaay bon ñoom ñoo sàcc bon nag danañ leen owaat ñu ñëw danañ leen owaat ñu ñëw euh, o ñi nga xam ne ñooy njabootu ki dee ñoom itamit ñu ñëw bu ñëwee ñoom tamit ñu gën a ñu ñu gëñ ci place ñu ñu gëñ de su ko defee ñooñu di gëñ dañuy ñëw gëñ ah, lu ñuy gëñ fa yox sumaane ñu gën billaahi ci yàlla ne la shahaadatuna seede suñu ñu seede gën gi ñuy gëñ a xaqu moo gën a dëggu mi shahaadatihima si seen gën yéen ñaar ñii de bu ko defee waa amr ibn as bi am amr ibn as bi ko yorontu ooye mu ñëw mu ne ko léegi gëñal yow tamit gëñal ndax li nga wax du dëgg la wala déet moom tamit mu taxaw dal di gëñ ne ñii ay sàcc lañ waxuñ dëgg man maa wax dëgg man mi man mi indi sama man mi gëñ nii man maa wax dëgg de ñoom waxuñ dëgg de ba mu ko defee yonentu dal teel atteel Amr ibn As mu jot alalam dal di dem gannaaw gi nag ñoom ñaar ñooñu ñëpp tuub nañ biñ tuubee dal di ne alquran waxoon na dëgg de ñun ñoo sàccoon ñun ñoo sàccoon jàmba de fa euh, te shahadatu naa seede suñu a xaqu moo gën a dëggu min ci seede seen ñoom ñaar ñi nga xam ne seede woon nañ te ay xéefar lañu woon de wa maa tadday naa jéggiwuñ dayo te ñun suñu seede si jéggiwuñ ci dayo dëgg gi rek lay wax ndax inna naka ñun isen boobu la ñu déggee ñu jéggee dayoo la mina zalimina aji bokk lañ ci way tooñere ñun li nga xam ne nekk na rek ñu ñu tëral ko loolu rek da loolu rek lañ wax ñoom dañoo sàcc rek feeñ nañ gëñ nañ ñun tamit gëñ nañ ne lañ waxoon tuumaal leen ko loolu mooy dëgg de fay na naaj la ndame na zaalimi zaalika loolu de seen zaalika loolu de seen ñu atte boobu ñu atte leen noonu addina moo gën a jege an yaatu bu ñu dëkkat bi shahadati ca seede ga ala wajiha ceet xarkanam ba de cet cet de góom ga cetam dooye dëgg nga xam ne noonu la boo ko déggee rek da xam ne lii dëgg la su ko defee nag lii ñuy def moo mën a indi nit nit ñi taxaw gëñ gëñ goo xam ne gëñ gu dëggu la lu feeñ la amul dara lu ci nëbbu de aw yaxaafu iki ñu ragal antura da bu delloo xat ay maan ay gëñ baada ay maan ci gannaaw gëñ seen de wala ñu ragal itam boo xamee ne ñoom tamit gëñ nañ ñu indiwaat yeneen yoo xam ne dañuy gëñaat bu ko defee li ñuy gëñoon ñu dàq ko indi yeneen gëñ ndax ñoom ñi sàccoon gëñoon nañ ñii ñëw ñi nga xam ne ñoom lañ sàcc ñu ñëw ñoom tamit gëñ seen gëñ googu ñu gëñ ñoom dàqee nañ ko ñële nga xam ne gëñoon nañ parce que seen gëñ du wutoon dëgg su ko defee nag ngir ragal nag ñu ragal ñuy firi seeni wax ci seen kanami nit ñi moo tax ñu gaaw rek nangu ne dëgg la ñoo ko defoon ñoo ko sàccoon rek aw yax aw yaxaafoon yëkk ñu ragal an trop bu delloon ay maanoon ay ngëñ baada ay maanaam ci gannaaw ay ngëñ seen wa taqullaa ragal leen yàlla wasma'u dégg leen waxi lem leen di lem leen di digal de ragal leen yàlla te nangul leen yàlla di digal de wallaahu yàlla laa yahdi jubal timu alxawma nit ñi alfasiqiina ñi dafay génn topp yàlla nit ñi nga xam ne topp yàlla ñooñu day ñoom yàlla du leen jubal du leen teg ci kaw yoon mukk lu ñu mën ci def itam perte rek ci lay mujj de gis nga ñii ba ñuy tuub booba ba ñuy ba ñuy def seen yëf yi jubadi yooyu boobu ña ca àll kenn fekkewut ñoom ñaar rek ñoo seq seen i pexe def ko waaye waxtu wa ñuy seq seen i pexe di ko def itam boobu ñu ngi ànd ak loo xam ne dana leen weer de ndax ñu ngi ànd ak dëgg te dëgg moom du sànku ma li ñuy cité garab yi waa bagage yi waa ji yëpp gisuñ këyit googu nga xam ne waa ji bind na ci bagage yëpp dañoo gis jàmbi rek jël dal tëkkaat ndekete boobu nag ñu ngi ànd ak loo xam ne moo leen di weer de te loolu nag ba ba moo tax pexey nit mën naa rëy lool waaye lim rëy rëy rëy yëpp su ci kaw tooñ la yàlla ngi leen di wax wa yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu xayrul maakiriina ñu ngi fexe man yàlla maa ngi fexe te man yàlla maa leen dàq pexe de naka noonu waxtu nekk rek pexe pexe lu bon pexeel nit lu bon pexeel nit pour tàbbal ko lu bon loolu nit moo koy def moromam nit moo koy def moroomam dina ko ko def ndax añaan dana ko ko def itam ngir bëgg am càng dana ko ko def pour nang dana ko def pour lay yu bëree bëri waaye du ko teg ndax yooyu mu koy teg yëpp dara du ci dëgg ndax yooyu yëpp walaa balut pour nga nar a nga nar a tuumaal sa morom yoo xam ne du dëgg de su ko defee nag yow mi nga xam ne yaa ngi def loo xam ne wala balut pour yàq sa deri morom wala pour sàcc sa alali morom wala pour toroxal sa morom te yi ngay def yëpp yi nga ko teg yëpp walaa balul yàlla moom mi ngi fi te xam na ne lu walaa balul du ko def de daf leen di muñoon rek bu yàggee dëgg dina feeñ de comme ni dëgg feeñee ci diggante ñii de wallaahu yàlla laa yahdi jubal ci mool xaw ma an nit ñi alfaasiqiina ñi daway génn topp yàlla de ñooñu nga xam ne génn nañ topp yàlla te mooy li nga xam ne yàlla digle ne ko ni la jaar ci jaaroo ci nga wut beneen foo xam ne ngay porox ndolloo ne foofu ngay jaaree génn bu boobaa say pexe ngay demee pexe yooyu pexe nii rek la amut kattanu yàlla amut kat amut doole yàlla yi nga xam ne moom mooy tiim di exécuter su ko defee nag nga defar say pexe ba mu pare nga dal di yow nag toog eh, foog ne foog ne foog ne sotti nga yàlla dina wax ne sotti woo sotti woo de ndax da nga génnoon dëgg bi ngay pexe yi léegi nag dégg googu nga génnoon mooy feeñ mooy feeñ nii rek su ko defee moo tax yàlla mu ne du jubal kay kay dal faasixiina faasixiina yëpp seen pexe lu ñu rëy rëy yàlla du ko jubal de yow ma ma yajmau llaahu bés ba dajalee yàlla arusula yonent yi fàttalikul bés bi nga xam ne yàlla dina dajale yonent yëpp te mooy bés penc fa yaqulu te mooy wax moom yàlla ne leen maasa ana lan laa la ujibtum lahu yuuf leen de dajale yonent yëpp ñoom ñëpp ak mboolem mbindeef yi di laaj nag mbo eh, mboolem sax xeet yi nga xam ne ci ñoom lañu yónnee woon ay yonent ñuy laaj ñu la ñuy laaj yonent yi ne leen seen xeet yooyu ñu leen yónnee lu leen tontu su ko defee tër bi dafa mel ni dafay bëgg yadd yonent yi waaye yaddut yonent yi ñi muy yadd mooy yi nga xam ne ñoom lañu yónni te nanguwuñ muy laaj yonent yi nag ne leen ñi leen ñi yéen ñoom lu leen tontu. <coughs> ñu nga tiita tiita tiit ba nga xam ne xamuñ lu muy tontu ñoom yonent yi ca ba ca place bu raglu booba de place su nit ñëpp mbindeef yëpp dekki nañ yàllaa ngi nii malaaka yaa ngi nii mbindeef yëpp a ngi nii jotaay baa ngi nii ñu taxawal leen ñoom ñëpp ci kanam loolu yëpp laaj leen mu ne danañ tiita tiita tiit ba nga xam ne duñ xam lu ñuy wax de boo tax itam xamuñ lu ñuy wax de ne fa ah, xaalu ñu wax ne ñoom yonent yi laa ilma den xam-xam danaa ñeexal ñu de ñun de xamuñ sax lu ñu tontu woon tiit nañoo tiita tiit ba nga xam ne fàtte nañ lu leen seen xeet yi waxoon ndax tiitaange ndax màggaayu bés boobu de innaka naka yow yàlla anta yow allaamul xuyubi yaay xamaa ko yaay aji xam ji fàddu de yow yaa xam li nga xam ne fàddu na ak li nga xam ne yaa yaa ko teewee yow yaa xam de ñun xamuñ dara ci lu yonent yi waxoon lu ñu suñ gaa yi tontu de moom mm. loolu la yonent yi tontu ca ca bés bu ñàng boobu ñooñ xamuñ lu ñu suñuy xeet yi tontu ndax dañoo gëmoon ndax gëmuñ kam xamatuñ ci dara fatte nañ yëpp ndax nag suñ xam-xam foofu rek la toll yow rek yaa xam-xam-xam boo xam ne dafay fëll dem xam xam xaadir xam bu loolu yow yaa ko am de waaye ñun amuñ ko de ñun liñ gis rek la ñu te sax léegi fàtte nañ ko xamatuñ dara yàlla loolu nag yàlla nga koy wax ngir ngir eh, yadd saxaaba yi eh, nit ñi nga xam ne ci ñoom la yàlla yónni woon yonent yooyu ñu bañ de waskur jàngatal is qaala laahu ba waxee yàlla yaa Isa yow Isa ibna Maryama kay doomi Maryam uskur fàttalikul neemati xéewal sama aleyka ci yow wala walidatika ak ci yaay sa kii Maryam yow Isa fàttalikul li ma la defal yee ci ay taranga fàttali ko ko de lu mu ngi nii di ko ko fàttali moom yàlla isa yettuka ba ma daxaree ba ma daxaralee la bi ruuxul qudsi ca ruuxu gu sell ga te mooy jibril ba ma la booleeg jibril mooy ànd ak yow foo mënti jaar rek yaa ngi ànd ak yaa mu lay mu lay teg ci kaw yoon de ndax loolu fàttali ko ko de tukkal li mu ngay waxe naa sa nit ña filma di ci biir mooy bañ la ba forawuñ wakkaxlan ak ba nga nekkee mbañam rus de nga xam ne itam may naa la ba nit ñi tuumaale sa yaay bëggee tuumaal sa yaay fekk boobu yaa ngi ci biir bi foraguñ la nga nga wax ak nit ñi de mu ne loolu itam man yàlla maa la ko may de ak itam bi nga demee ba nga xam ne mat nga mbañ rus nekk waxambaane nekk mbañ rus booba itam may yónni la def la yónnante bi yàlla wàcce ci yow samay kéemtaan ndax loolu fàttali woo ko wa wa id allamtuka ak ba ma xamalee la alkutuba bind alkitaaba mbind ak ba ma xamalee la mbind nga mën a bind isa ñi bind ñëpp moo leen dàq bind de wal xikmata xam-xam bu xam njëriñ wa tawraata ak tawraat wal injiil ak linjiil loolu yëpp man yàlla maa la ko defal ndax bon waroo fàttaliku sama xéewal ba sant ma rek boo istaxluqu ak ba da nataal mi na tiini ci ban bi ka yeeti tayri lu demee meloow picc bi isni ci ndigal sama de ndax itam yaa ngi fàttaliku ba ma la mayee kattan boo xam ne mën ngaa tibb ci ban bi rek nataal ko ba mel ni picc nga ëf mu naaw ndax fàttalikoo loolu ne man maa la ko defal de yàlla moo defal loolu yonent yàlla Isaa te mu ngi ko ko defalee ci picc mu ñuy wax njugub njugub njugub picc yëpp moo ci gën a kéemtaane ndax picc la moo xam ne amut karaw te dafay naaw amut karaw te dafay naaw picc la moo xam ne dafay gis mbërëg nii nit ñi di gisee mbërëg picc la moo xam ne dafay ree picc la moo xam ne dafay wasin picc la moo xam ne itam du gis du gis ba cëg guddi rek lay gis moo tax guddi rek lay génn de loolu loolu picc moomu mu amee mu doy kéem kéemaan moomu ci la yàlla bind ci la yàlla joxe yonent yàlla Isa moom tamit kéemtaan goo xam ne ci bindee nataal boo xam ne bu ko defee ci ban bi rek bu ne ëf rek mu naaw waaye bu naawee naawa naaw ba génn bëti nit ñi rek daanu nekkaat ban de mu ne ndax yooyu ndax Isa fàttalikoo fàttalikoo loolu ke hëyati tayri mu di nekkee melow e ñanaaw fattan foxoo te nga wol fii ci moom fa takunu mu nekk taayiran di aji naaw bi nii ci ndigal sama de su ko defee boo ci ëffee rek mu naaw loolu yëpp yaa ngi koy def ci sama kattan ak sama ndigal man yàlla watub réewoo ta ngay muñ te ngay wéral ëllëg ma <coughs> aji gumbo ak nit koo xam ne dafa gumbo nit ëkk ma moo xam ne dafa juddu rek kanam gi yëpp maase amul dara bët yeeg yëpp a tëju bu ko defee yonent eh, yonent yàlla Isaa ko indilee ku noonu dafay fexe rek ba xotti place bët yi jël benn xeer def ci rek dal di ñaan ba di dal di dal di dellu si mu ne ndax mayu ma la woon loo xam ne yaa ngi ko daan defee loolu ci sama ndigal wa wa wal abrasa ak aji feebari feebari baras mooy feebar yooyu di indi yaram ni ñu ñu weex tàll may naa la koo ci laal rek mu wér bi isni ci ndigal sama waaye istaxruju ak bëgg na génnee ba da nga génnee almawta way dee ñu tukkee ci seen i bàmmeel de te itam ñi dee ñëpp mën nga leen a ku dee itam bu la neexee mën nga koo génne ci sa bameel loolu yëpp man yàlla may naa la ko yow yonent yàlla Isaa biis nii ci ndigal sama de wayis ka faftu ak ba ma fegee anka walis la bani Israayla bani Israayla ak bani Israayla bañ jógee bëgg laa rey kan moo kan moo la fekk ba musal la musal la ci ñoom jël la yóbbu la ci yóbbu la asamaan nga gàddaay dem ànd ak malaaka yi yaa ngi ci kaw asamaan léegi ku la defal loolu yëpp du man yàlla maa la defal de is jiitahum ba nga dikkee leen ñoom bani israila bi baynaat ca ca ca kéemtaan ya fa qaala wax ladina yaa ña kafaru we dinañu minhum ci ñoom in haasa déet le illaa saxarun dana njabar la mu biinun gudda aji bit di yow yaa nun ci àlla isaa li ñu indee dara du ci dëgg ay njabar rek comme ni eh, xéefar yu tontoo seen yonent yi bu ñëwee rek ñu ne ko da ngay fen lu nekk rek danañ ko teg seen yonent wax nañ ko ba wax ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ji njabar la wala euh, buxaaba la lu nekk wax nañ ko ko de mu ñu mooy seen aada weddikat jamono bu nekk weddi rek la ame dina am layam yu mu weddee moom tamit ki ñuy weddi moom tamit dina am layam yoo xam ne moo gën a dëgër lay layi weddikat bi moo tax yi nga xam ne weddi nañ yonent bu ñëwee dañuy lay rek su fekkee lii xamuñ ko li muy def xamuñ ko ñu ne eh lii njabar la su ko defee battu lii njabar la dana dugg ci xeli ay nit ñu bari ñu foog ne loolu dëgg la waaye nag li lay xamal ne du njabar mooy ñoom li ñuy woote dana sax ñoom liñu li ñu doon woote dana dañ de fa qaala leen in haada dellile illa sihrun dara njabar la mu biin gu daa ji bidde wa ko jàngatal isa waxaytu ba ma wax yoo ilal xawaari yi na jëm ca poota jëm ca pootaan mooy ñi nga xam ne ñoo toppoon yonent yàlla Muusa yonent yàlla Isa an luy mbit tey mbit ne leen aminu gëm leen bii ci man wa bi rasuli ak ci yonent sama de ba yàlla yónnee ye ba yàlla wax yoo jëm ca poota kooni Isa ya ne leen gëm leen ma man yàlla ne eh, man rek man rek ma war a man rek lañ eyoo jaamu ak gëm leen yonent yàlla Isa ne maa ko sama jaam de sama jaam la boo xam ne maako ko de xaalu ñu wax ne ñoom ñooñu aman naa ñun de dëggal nañu ci loolu nga ñu wax de gëm nañ ne yow yàlla nga gëm nañ ne yaa yónni yonent yàlla Muusa de wachet seedeel ñu benn naa naka ñun benn naa naka ñun muslimuna way xommatu la way xommatu la ñu ñeel yonent yàlla Isa de nangul ñu yow yàlla ne ñun gëm nañ li nga xam ne wax nga ñu ko ci gëm la ak gëm yonent yàlla Moussa jébbalu na ñeel ko de is qaala boo waxee alxawaari yu nay alxawaari yu nay puutaakoon ya yaa Isa yow Isa ibnu Maryama kii doomi Maryama hal yastatiiw ndax dana def rabbuka borom sa hmm? xal yastateew ndax dana def rabbuka borom sa a an yunazila bu mu wàcc xadaale naa ci ñun maa yi datan taabal mi ne samaay mu tukkee ci ka asamaan ndax yoo yonent yàlla Isaa mën nga ñoo ñaanal sa borom wàcceel ñu taabal yoo xam ne ci asamaan la bàyyi ko xaala mu wax leen Isaa ne leen ittaqullaa ragal leen yàlla in kuntum dem nekk ngeen muumini di way gëm de su fekkee gëm ngeen yàlla na ngeen ragal yàlla tabañ bañ fee nekk di ñaan ay kéemtaan ndax kemtaan ñaan ko baaxut ndax boo ñaanee kéemtaan boo gëmee bu ñëwee te gëmoo da ngay alaku rek li alak ket yi jiitu woon yëpp moo tax ñaanu ñaan ay ay mujisa ñaan ay xar baax ne nañ la ko defal pour nga gëm bu xar baax yi ñëwee te gëmoo mooy ne yow alaku nga ah moo tax yonent yàlla Isaa ne leen ragal leen yàlla te li ngeen gëmee yàlla rek doy na ñu daldi indi seen lay ñoome tamit xaalu ñu wax ne nuridu ñu namm an naakula bu ñu lekkat min haa ci moom wa tatmainna tey dal qulubuna xol sunu ne yonente bi yàlla nga wa la ma ñu xam ne an xat sadaqtana naka wanaa la mu tañ xam an naka luy mbit tey mbit xat sadaqtana dëggal nga ñu li nga wax ne yoon yonente bi yàlla nga de dañoo ut rek lu ñuy gëmee yàlla ak itam dañuy ut rek loo xam ne dañ koy bànneexoo ci eh, ci see nekk gi nga nekk ak ñun waaye gëm nañ yàlla de wana kuna ba kuna tañ nekk min shahidina ci way seede loolu ñu wax de xaala wax hmm? alayha ci moom de bu ko defee loolu ñu wax yëpp ñoo ñu ko seede ne lii moo koy dëggal de xaala wax seb isa bnu mariama isa bnu mariama allahumma yow borom yow allahumma yow borom tur yeeg melaw yu rafet yi yonent yàlla yi sàngay ñaan déglu leen nag ni yonent di ñaanee ak ni muy waxee ak péeba mu ne allahumma yow borom tur yi yow borom tur yeeg melo yu rafet yi rabbana yow borom sunu anzil yàlla nga wàcce aleenaa ci ñun maa yi da tan taabal mina samaay di jukkee ci asamaan te kunu mu nekk la naa ñeel nu iidan di di iid boo xam ne dañ koy màggal de di fet joo xam ne dañ koy màggal de li naa bu ñu yaxal wéy njëkk sunu waa xiri na ak ñeel wooy moc suñu de <coughs> waaye ten tey kéemtaan min ko gu tukkee ci yow warzuq naa warsagal ñu taabal jooju de boo ante yow xayru raziqina yaay gën ji woy warsagal ñi de loolu la yonent Yàlla Isaa wax ak boromam yow borom bi borom tureeg maram yu rafet yi yow mi nga xam ne mën nga lu nekk attan nga lu nekk ñu ngi lay ñaan yow yàlla nga wàcceel ñu benn taabal joo xam ne dafay jóge ci asamaan taabal joo xam ne bu wàccee dafay nekk feet ci ñun ñaar suñu way njëkk ak suñu way mujj yëpp ñu di ko feetoo de waaye tan tey kawtee min ka dukkee ci yow nekk kéemtaan boo xam ne ci yow lay bàyyee ko ñu xamee ñu ne sa yonent bii dëggal na de war sox naa yàlla nga war sagal ñu wante yow xayru raasiqiin yaa gën war sagal ñu ba mu ko defee nag bi yonent yàlla Isaa ñaanee loolu yàlla daldi koy may xaala waxe laahu yàlla ne nii naka man munazziluhaa aji wàcce la ma ko de dina leen wàccel taabal jooju de aleykum ci yéen faman yakfur ku weddi na mu baada baada baadu ca gannaaw ak wàccam minkum ci yéen fay nii naka man waazibu dina ma mbugal ko azaban mbugal laa waazibu mbugal ci ma ko ahadan kenn min al alamina ci mindeef yi de man yàlla dinaa leen wàcceel taabal ji ni ngeen ko waxee su ma ko wàccee nag su ko defee su fekkee gëm ngeen baax na pour yéen su fekkee weddi ngeen nag da ngeen xam ne dinaa leen mbugal mbugal moo xam ne musuma ko mbugal kenn ci ñi nga xam ne dawe woon nañ de ñoo na ñëw rek ñu toog rek gis taabal jaa ngi wàcc jógee asamaan day day day day day day day ba agsi bi ma agsee ñu seet taabal ji fekk ci ay mburu fekk ci façon toggin bu nekk fekk lañ ko ci kaw taabal ji de mburóog yàpp ak jën lépp loo xam ne dañuy togg rek fekk lañ ko ci kaw taabal ji ñu togg ko façon toggin boo xam ne lu ko gën a neex ci àddina amut ndax togg la goo xam ne jógewut ci nit ñi waaye mi ngi jógee ci kattanal yàlla de bu ko defee mu togg gu neex ñu daal leen ko wàcceel nag ne leen lekk leen ñu euh, bañ toogee di lekk ñu ne Isaa ñëwal Isa ne déedéet man laajuma kéemtaan yéen yéen a laaj kéemtaan bon yéen a koy lekk de yàlla ne leen mu ngoog nag lekk leen ah, ne leen lekk leen de man yàlla lekkuma man Isa lekkuma de yéen yéen laaj kéemtaan yéen a bëgg kéemtaan waaye nag yàlla ngi leen di xamal ne bés bu ngeen jëlee benn bés ne da ngeen ci tibb dara pour denc seen kër bu boobaa rek ngeen perte ko de bu booba nag xalkare ñëw na ci yéen ba ko defee ñu nekk taabal ji sax naag ñoom ñeent fukki guddi yoo xam ne bër bu set mu wàcc benn bés ñu ne ah waaye lii lan la am sa ñam ba pare ne doo ci yóbbu sa kër bañ a yóbbu dal di tibb rek yóbbu seen kër bañ tibbee yóbbu seen kër rek ca la taabal ji nga wàcce ca lañ xëy yàlla daal di leen soppi ñoom ñëpp ay golo isaa xëy ñu xëy gisuñ dara isaa xëy itam gisu leen mu seet seet anañu gisu leen mu dem seen kër yi kum ubbi rek njaaxaal ah, mbaam xoox yi ak golo yi njëkk leen seen kaw bu ko defee ñoom ñëpp yàlla soppi na leen golo alag na leen soppi na leen ay golo yàlla wax na ne ci laaye ji mu ne dañ koy jàpp iidan lana boo demee it ci euh, ci ci ci diine am na ci ñetti barab mooy iidu li yàlla waxoon xaala euh, maw'idukum yawmu ziinati ca bésab taaru ba mooy bésab feet la loolu bés la bés la bés ak fit bi xam ne nit yonent yàlla Ibrahima ya ñu ngi ko doon feetu loolu itam feet la ak feet gi nga xam ne mooy feetu ñi nga xam ne wàccal nañ leen taabal jii de ba ñetti feet yooyu ñoo amoon boo ñëwee ci jullit ñi nag ñoom tamit am na ñetti feet ñetti feet yi mooy lan mooy fi nekk ni ñu ngi ci koor gi bu koor gi jeexee danañ ko feetu feetu jullit mooy dafay def farata boo xam ne yàlla sant na ko ko bu ko defee ba mu jeex su ko defee yàlla may na ko ne ko feetul de su ko defee weeru koor wi farata la ji ñu yàlla teg buñ de waxtu woo xamee ne jeexal nañ ko yàlla danañu may ñu feetu feetu euh, ajjuma bési ajjuma bési feet la ci ñun ndax lan yàlla sant nañu ci semaine bi loo xam ne dañ ko war a def mooy julli semaine bi yëpp boo jullee ba semaine bi jeex ajjuma jot ñu ne la may nañ la tey feet la bu ko defee nga feetu ju ko boo feetoo julli ca jumaa ja nga xam ne feet waxtu wu nekk nation yi bu ñuy feet dañuy def seen discours moo tax ñu indi discours bi wàññi julli gi ndax su bàyyi na wàññi bàyyi nañ julli gi muy ñeenti rakka boole ko discours bi dana bëri lool bu ko defee nag moo tax ñu ne xaaj leen ko ba genn gi benn wàllu julli gi ngeen def ko discours genn wàllu julli gi ngeen def ko ñaari rakka su ko defee moo tax ajjuma ñu koy julli ñaari rakka de su ko defee nag loolu itam feet la am na feet goo xam ne feetu tabaski la nga xam ne moom itamit lan moo ci em mooy ba nga armalee ne da ngay da ngay da ngay aj màkka boo demee ba nga xam ne arafaat dem nga ba taxaw arafaat ba jeex bu ko defee bu bët setee may nañ la nga feetu mooy feetu tabaski de bu ko defee bon eh, feetu yi nga xam ne dafa am ci diine lislaam yëpp dafa taxaw ci kaw njaamu goo xam ne boo ko defee ba mu jeex yàlla may na la nga feetu de loolu moo tax bés yi nga xam ne mu ngi xew ci lislaam ci weeru koor beeg yooyu ñu naan màkka doog nañ dañoo war a doog ndax bokkuñ ay waxtu am nañ waxtu yoo xam ne jaar na suñ diggante waxtu wa ñuy ñoom seen njaamu jeex na ñun suñ jaamu jeexagut su ko nag naka la def loo xam ne àggaguñ ci ndax rek toppandoo aw nit loolu dëgg du yoon lii dëgg li di yoon mooy am na ñeenti waxtu yoo xam ne jaar suñ diggante ñoom seen koor jeex na jeex na jeex na ci ñoom ñun weer wi jeexagut ci ñun des na ñaari ñeenti waxtu walla juróom wala juróomi waxtu juróomi waxtu yooyu nag duñ ko dagg ngir topp lu neex nit rek de dañ koy topp ba mu jeex de loolu moo tax weer wi yi waa Màkka gis nañ ko waa Màkka gisuñ ko loolu yëpp dañ koy wax rek ngir euh, xew-xewi àddina yeeg pexey àddina yeeg euh, loolu rek ci lañ koy jaarale de waaye jaarale lañ ko ci tët boo xam ne tët bu dëggu la de mu ne Euh, ba mu ko defee nag yonent yàlla Isaa ngoog yàlla fàttali fàttali na ko fi mu jaar moom yëpp ba mu nekkee ba mu koy jox kattanu muy wol muy naaw won ko itam ba ko ay pexeem di fexeel ak bëkk ba ci ay taalibeem bi ñëwee di ko wax ne na leen utal taabal ñu jógee asamaan loolu yëpp yàlla fàttaliku na ko ko ba ko fàttalee ba pare nag ca péncam yàlla moom la yàlla di njëkk a taxawal xisaab ko yonent yàlla isa moom la yàlla di njëkk a taxawal bés penc ko yén yeneen yonent yi door a ñëw ba yonent yàlla isa ak lum am maqaama am daraja danañ ko taxawal xisaab ko de yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog képp kuñ xisaab moom moo lay musal yonent yi nafsi nafsi nafsi nafsi ñun kat yëpp Muhammad rek dañ fi yaakaar de yaakaaruñ kenn ku dul Muhammad bañ demee ci Muhammad mu ne leen ana laha man la bon nag ku yàlla may ak nga ci daraja nekk saxaaba yonent yàlla Muhammad te nekk ci diineem bon yàlla may na loo xam ne mayu ko keneen am na yoo am na yoo xam ne yàlla may na ko sax saxaaba yonent yi ñi ànd ak moom te mayu ko lenn yonent yi ndax dégg ngeen yonent yàlla Isa Moussa ba mu wax ak yàlla ne ko yàlla ma gis naa xeet woo xam ne seeni i téere ñu ngi ci seen dënn mu ne ko kooku xeet fi yonent yàlla Muhammad la mu ne gis naa ñoo xam ne seen i jëf dañuy lekk dañuy dañuy lekk seen i jëf mu ne kooku xeet yonent yàlla Muhammad la gis naa ñoo xam ne dañuy tuub rek te duñ jaar ci benn yonent mu ne xeetu yonent yàlla Muhammad la mu ne ko yow yàlla boole ma ci xeetu yonent yàlla Muhammad yàlla na ko doy loolu li nga am de doy loolu na ak yonent nga de bon yonent yi am na ci ñoo xam ne sax euh, xeetu yonent bi am na loo xam ne yonent amuñ ko ñoom ñooñu amuñ ko bay mébét yàlla pour mu boole leen ci xeetu yonent yàlla Muhammad de bon Isa Moussa luñ kawe kawe yëpp ay ay yonent lañ yoo xam ne ñoom ñëpp yonent yàlla Muhammad yàlla yëkkati na ko ci seen kaw ba wax ko ne mu wa muhaiminan alayhi te yonent moo indi téere bi nga xam ne mooy téere bi tiim téere yëpp muy tawraat ak linjiil yëpp boo ñëwee baax si alxuraan rek jeex na yooyu yëpp effacé wu nañ de ndax yooyu yëpp ñu ngi ci biir alxuraan ndax boo demee yàlla téeméeri téere ak ñeenti téere la fanweer ci siisa euh, fukk ci idris fukk ci yonent yàlla isa ci ci muusa fukk ci yonent yàlla ibrahima ak fukk ci euh, euh, zaburu daawuda ak alquran ak tawraat ak linjiil doola ñëw muy téeméeri téere ak ñeent yoo xam na la wàcce na ko téeméeri téere yooyu yëpp yàlla boole na yàlla boole na leen ci tawraat ak linjiil li ci nekk ci linjiil yëpp yàlla boole na ko ci alquran li nekk ci alquran yëpp yàlla boole na ko ci fatihatul kitaab wax nañ ne li nekk ci fatihatul kitaab yëpp yàlla boole na ko ci bismillahi rahmaani rahim bon téere boobu moo gën a mat téere yëpp moo tiim téere yëpp moo tax bi bi mu ñëwee folli na téere yëpp folli sharia yi nga xam ne moom la téere yooyu indi woon de moo tax yonent yàlla Isaa kenn la ci mbindeef yi nga xam ne ëllëg ci mam yonent rek lay yaakaar mucc mucc de ndax bañ ko waxee mu ne déedéet man kat sama nit ñi waxoon nañ ne man yàlla laa ba ba njaamu ma tax xaw loolu lu ci yàlla di def ak man bon dem leen ci diw dem leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ci Muhammad ne nangam ak nangam ak nangam mu daal di ne loolu man la man maa koy man maa koy réglé de daal di jóg réglé ko nit ñi. mu ne was ko jàngatal is xaala ba waxee allahu yàlla yaa isa yow isa ibna Maryama ante yow kulta wax nga li naas ñeel nit ñi ne leen ittaxisuuni jàpp leen ma woo mi ak de sama ilaahi nit ñu ñaari yàlla mu ndax yow yonent yàlla isa yaa wax ne seen nit ñi nañ la jàpp yaag sa yaay ngeen di ñaar yàlla issaa tiita tiita tiit ba nga xam ne nee nañ karaw yi bopp bi dafay génne deret ndax tiitaange xaala mu wax ne subhanaka tudd na mag sell sa maa yekunu xeelul lii ñeel ma ana qulub moo waxat maa lay seloolu nekkul bi xaqin di dëgg lii ma de mu ne day Isa de dali ne dee reet loolu de moom waxu ko ndax xeelut ci moom muy wax loo xam ne du dëgg de lim njëkk a tontu yàlla subhanaka tudd na ma sell sa maa yakunu xellu lii ñeel ma ana xulo bu moo xat maa lay sali loolu de loolu ma bi xaqin muy dëgg de da aw ma benn dëgg di wax ci yow loo xam ne du dëgg de in kuntu ndeem nekk naa xultu wax naa ko faqad alimtahu xam nga da faqad alimtahu xam nga su fekkee ma leen ko wax yow xam nga de taala mu xam maa fii nafsi yi la may nëbb ci sama bakkan wala alamu ta xam te ma fii nafsika li nekk ci sa bakkan de yow yàlla man li nekk ci man yëpp xam nga ko li may nëbb yëpp xam nga ko te man li nekk ci yow xaw ko lu dul li ma ci xamal rek innaka naka yow anta yow allaamul ghuyuub yaa aji xam ji fàddule yow yàlla li feeñ yako ko xam li nëbbu itam yaa ko xam de ma qultu waxuma lawum ñaar leen illaa ma amartani ndara la digal nga ma bihi ci moom li ma digal rek loolu laa leen waxoon de mooy lan an an wéetal leen ak jaamu ana abudullah wéetal leen yàlla ak jaamu de rabbi kii borom sama wa rabbukum tey borom seen wa kuntu nekkoon naa shahidan daa ji daa ji fuuglu alayhim ci ñoom de bi ma nekkee ci ñoom maa ngi leen ko doon sant maa ngi leen doon fuuglu ku ci bëgg a def loo xam ne ute nag loolu ma aaya la waaye nag fala ma taw fayta nii ba nga hmm? maa dumtu ba sax maa dumtu fekk naa fi yem ci ñoom de li ma sax ci ñoom yëpp maa ngi leen doon fuuglu ngir ku bëgg a def loo xam ne ku tee li nga xam ne mooy seen sa santaane ma aye leen ko de fala maa taw nii ba nga yëkkatee ma nag yeme ma ca asamaan kunta yow anta yow arraqiba yaa aji fuuglu alayhim ci ñoom de ba ma yóbbu asamaan nag fi ne yaa fi sës la fay la fa nekk yëpp yow yaa xam de te yaa koy fuuglu de wa anta yow shahidun aji seede nga ala kulli ci lépp lëf de te yow yaa seede lu nekk in tuazibhum ne mbugal nga leen fa innahum naka ñoom ibaduka ay jaam saaha boo leen mbugalee say jaam lañ de wa in taxfir waaye ndem jéggal nga lawum ñaar leen ba tey say jaam lañ de fa innaka naka yow anta yaay aji not ci sa nguur alxakimu yaay aji xereñ ci sa njëfle ci sa njëfte loolu la yonent yàlla Isaa tontu tontu bu yaru moo tax nit ci seen dox jëm ci yàlla nu seen yaru em nu seen yarute em rek noonu la seen maqaama di yëkkati ko booy dem ci yàlla ànd ak yarute ànd ak wax yu wax yu wax yu ànd ak yu dëppoo jëme yàlla ji nga di ko waxeek moom ngay jëflanteeg sa moroomi jaam yi itam ci kaw yarute goo xam ne yaru rek la bu boobaa yaay gën a ëpple ki nga xam ne rek moom dafay dafay toppee bakk dafay waxee lu ko rek waxee bakkanam waxee bakkanam waxee ni mu waxe waxee kattanam waxee sentiment am waxee wax wax yoo xam ne loor la koy gën a indil ci fajal ko soxlaam de moo tax mu yonente àlla isa wax bu yara wax bu yar bu tegginu la wax yàlla de lim ko njëkk a wax moo ne ko yow yàlla yow xam nga ne xeelut ci man may wax ci yow loo xam ne jaaduwut de waxuma ko su ko yàlla waxoon ne yow yàlla yaa yow isa yaa wax ne nangam ak nangam mënoon naa tëb rek ne waxuma ko waaye bu ko defee tontu bi dafay wow te gàtt waaw waaye nag gis nga fi mu ko jaaralee xellut ci man may wax ci yow loo xam ne man xaw ma ko xellut ci man may wax ci yow loo xam ne xaw ma ko de ak loo xam ne du dëgg de ndax su fekkee man wax naa ko man wax naa ko yow yàlla xam nga su fekkee waxuma ko itam yow yàlla xam nga de waxuma leen dara. lu dut ndax yow yàlla xam nga li nekk ci man ba mu jeex sëkk te man xaw ma ci yow lu dut li nga ma xamal de li nga ma rek moom laa mën a xam ci yow ah, ndax yow yaay xam li nga xam ne teew na yaa xam tam li nga ne fàddu na de man waxuma leen lu dut ne li ma santoon rek ne naa leen ko wax loolu laa leen doon lan loolu laa leen loolu laa leen doon wax mooy ne jaamu leen yàlla seen borom tey suma borom te boobu maa ngi fa woon di leen fuuglu gannaaw boo xamee ne yëkkati nga ma nag nekkatuma fa yow yaa fa nekk di leen fuuglu bon yow yaa xam de luñ sos sama gannaaw yow yaa ko xam de waaye ma man waxuma leen ko de la lay waangoog lay wu mat te jub moo tax ñu ne mooy mooy awokaay julli euh, euh, yonent yi mu ne ñu goog nag boo leen yërëmee say jaam lañ eyoo nañ nga yërëm leen de soo leen bëggalee itam ba tey yow yaa noot rek sa nguur lu la neex nga def de xaala wax laahu yàlla ne haada bi le bés bés penc yow ma yan faxu saadiqina mooy bés ba dana jëriñ dëgg laa ko nii ak dëggal seen de wax na yàlla wax na ci alxuraan yàlla wax nañu wax nañu sànq ne yàlla bind na bés yi muy juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan yooyu kenn mënu cee yokk benn kenn mënu cee wàññi benn juróom-ñaari fan yooyu nag boo demee yàlla wax na ci alxuraan ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin benn bés ci yéen mi ngi mel ni junne at ci yàlla su ko defee bon ci kaw loolu am na ay borom xam-xam yoo xam ne dëgg nañ ci ba ne dunde àddina juróom-ñaari junne at rek la jeex na ndax àddina juróom-ñaari fan la fan bu nekk mu ngi tolloog junne at ci yàlla bon nag junney at junney at junney at ba muy juróom-ñaari fan muy juróom-ñaari junney at ñu ne loolu àddina bi na di di dund de ah, loolu ay borom xam-xam ay gëstukat ñoo ko wax seen moyen gëstu ak seen moyen xam-xam jamono booba loolu la leen joxoon ñu mën koo déggee waaye léegi nit ñi ñu ngi oote ay xam-xam yoo xam ne ñoo ko fental seen bopp di ko tuddee ay moyens gëstu ah, stomologie ak euh, yeneen tur yoo xam ne ñoo ko fent ne foofu lañu war a tabax ni ñuy gëstoo xam-xam ñoom ni ñi ñoo ko def nit ñooñu def ko duñ ay yonant ay nit rek lañ waaye yàlla may na leen dégg may na leen intelligence mën nañoo xam mën nañoo dégg mën nañoo gëstu waaye luñ ko mën mën itam seen résultat lu foor foor àggut ci résultat wu waxu ab yonant ndax yonant yàllaa koy wax loo yonent yàlla koy sant de ak itam borom xam-xam yi gëstukat lañ lu nekk sa jamono lim la laaj nga gëstu ca loolu la sa jamono laaj ci loolu ngay ci loolu gëstu jamono yi passé ay ñaar fukki at juróom fukki at ci gannaaw boo demee da nga gis ne nit ñi dañ daan gëstu littérature di gëstu euh, histoire di gëstu nangam ak nangam waaye loolu boo demee yëpp da ngay gis ne technologie jël na place am ne nit ñi ñu ngi gën a lancé wu. ci technologie ndax ci lañ gën a ci lañ xam ci lañ foogee ne ci lañ mën a xamee loo xam ne ñi leen jiitu mu ko woon a xam waaye loolu yëpp ay njortu rek ay njortu nit rek lañ du ay atte yoo xam ne dafa jóge ci asamaan ñëw ci ñoom ne leen nii la seen njortu rek ak seen i eh, eh, taqaarub wax jegelante ay affaire rek ba génn ci dara loolu la waaye du wax boo xam ne dafa bàyyi ko ci allah am na garantie cent pour cent ne dëgg la de mën naa nag doon dëgg su fekkee liñ indi ñëw nañ fekk na mu doon dëgg danga nga fekk ne rek dana dëppoog waxee alquran de waaye su fekkee liñ indi dëppoowut ak dëgg bu boobaa itam dëppoowut ak dëgg du dëgg de moo tax ay borom xam-xam di bañ di wax naan bu tubaab yi gisee defee def benn découverte rek nga ne alquran waxoon na ko su fekkee seen ndax seen découverte yooyu saxut tey mu mel nii ëllëg mu mel nii su fekkee ndax mel na nii tey nga ne alquran waxoon na ko ëllëg bu melee neneen ndax da ngay wax ne alxuraan waxoon na ko bu boobaa alxuraan suñ xel yi rek la topp te alxuraan topp suñ xel yi de alxuraan dafay jubbanti suñ xel yi waaye topp suñ xel yi de moo tax bu loolu nag moo indi euh, wuute lu nekk ci diggante ay scientifique ñi ñuy tuddee ay scientifique ak ñi nga xam ne ay religieux lañ dañoo foog ne xuloo ñàkk déggoo dafa nekk seen diggante waaye xuloo ak ñàkk déggoo nekkut seen diggante di nekk seen diggante mooy xam-xam ak sa façonu gëstu ci xam-xam sa méthode bi nga xam bi nga am di ko gëstoo xam-xam loolu moo nekk ñii am nañ méthode bii ñii am nañ méthode bii ñoom ñëpp dañu ut résultat buñ àggee ci résultat boo xam ne ah, bu ko xel déggee nangu ko comme lu demee ni ki Big Bang bi ko nit ñi di wax bi ko nit ñi di ko nit ñi di wax bi ko nit ñi di nangu yàggu dara bañ ko gisee yàgg na lool waaye bi ko nit ñi di nangu ci dans les années 60 rek lañ ko door a nangu ne xam-xam bu wér la waaye bu njëkk nangu ko woon waaye boo ñëwee da nga fekk alxuraan da fekk ne wax na lu mel noonu bu yàgg ca jamono yonent ci boo demee ci suratu baqara danaa wax da fekk mooy wax naan eh, ba nga xamee ne awalam yara lazina awalam anna samawati wal arda kanata ratxan fa fataxnaahuma loolu boo demee bon am na cosaan bon nag su fekkee waxi big ba ñëw na danga gis ne dëppoo na ak laaya alxuraan mën nañ koo nangu ak yeneen yu bari yoo xam ne demee na noonu waaye nag su fekkee nag ah, yow ab ñu ne da ngay science kat nga da ngay xalaat da tëral da ngay calcul loolu yëpp dëgg la ay ay ay moyen àgg ci xam-xam la waaye nag def ko ba àgg ci taxulaa àgg ci dëgg nga xam ne mooy dëgg gu absolu àgg nga rek dëgg dëgg goo xam ne c'est relatif ah mën naa am dëgg dëggu na ba fii waaye nag fii moom mënu faa àgg wa fawqa kulli zi ilmin alim ma nga fa su ko defee nag bon xuloo nekkul ci diggante scientifique yi ak religieux yi xuloo nekkul seen diggante waaye lu ci nekk nit ku rëy rek nit ku rëy rek moo fi nekk ndax <clears throat> man mii nga xam ne maa ci sonn di ci sonn guddeeg bëccëg di gëstu ba àgg si ci nga naan am ah, dafay métti loolu duñ ko nangu de seen bakkan yi rek ak seen réyaay moo leen di weddiloo waaye nangu nañ li nga xam ne dëgg la ndax am na ci ñoom ñoo xam ne nangu nañ ko am na ci ñoom ñoo xam ne nangu nañ ko de mu ne xaala wax laawu yàlla ne hada bi le bés bésa penc bii mooy yowmal qiyaamati yow ma yan faw mu bés ba dana jëriñ as-saadiqiina dëgg laa ko ñe ci àddina de ña dëggaloon yonent yàlla Isaa ci àddina bés bi mooy seen bés de mooy seen bés ci texe de sidqahum ak dëgg seen ndax tey mooy bés a pay bi de lahum ñeexal na leen lahum war na ci ñoom jannaatin ay tool te jibi yooyu dana daw min a shayron seen al-anhaaru yool yéenant <coughs> xaalidiina mit mu yooy bel fiihaa <coughs> ca yooyu la de abadan dappet ñi nga xam ne buñ dugg yàlla ngay jug dugg rek dugg boo xam ne dappet yàlla nañ ci yàlla boole <coughs> radiyallahu gërëm na yàlla anum ci ñoom ci topp gi ñu ko doon topp yàlla gërëm na leen ci topp gi ñu topp ba dugal leen aljanna bu ñu xasee dugg aljanna rek jeex na doo ci génn dappet rek wala du teñ gërëm teñ gënam teñ gërëm ñoom tamit anu ci yàlla ci yool gim leen yoole yàlla gërëm na leen ci liggéey bi ñu doon liggéey ci àddina ba fayee leen aljanna ñoom tamit gërëm nañ yàlla ci li nga xam ne yàlla fayee na leen ko de daalika loole alfawzu moom moo di texe alazimu guddi aji màgg de dëgg-dëgg ko am loolu mooy am nga texe de ndax yàlla wax nag ci beneen laaya fa man zuxziha ani naari wa udxilal jannata faqad faaza kooku moo texe de koo xam ne yàlla musal na ko ci sabara dugal ko aljanna kooku moo texe de waaye képp koo xam ne nag demoo aljanna ak koo mënti doon ak la mënti doon na nga xam ne toroxtaane rek ngay fekk foofu ëllëg de yàlla ñu ci yàlla musal lillaahi aji nekk la ñeel yàlla mulku samaawaati guur ak juróom-ñaar wala de ak suufi juróom-ñaar wama fii naag la nekk ci diggante seen de yàlla wax na dina koy koy wax di ko waxaat maa moom asamaan maa moom suuf ak maa moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf ak li nekk ci ron suuf yëpp maa ko moom <coughs> ngir lan ngir dolli ñu ñun doomu aadama xam-xam ngir dolli ñu am cofeelu bëgg gëstu xam-xam su yàlla waxee ne man yàlla maa moom asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi ndax li nekk ci diggante bi mooy jaww ji rek ñuy gis déedéet ay jaam yu mel ni ñun ay jaami yàlla yoo xam ne ñu ngi fi nekk ak ñun ci diggante asamaan ak suuf di jëf ci ñun ñun tamit ñuy jëf ak ñoom ci gis leen wala ñàkk leen a gis ñu ngi ci ndax ñooy jinne yi jinne yi bokk nañ ci waaye micro yi bokk nañ ci malaaka yi bokk nañ ci ak leneen loo xam ne gisuñ ko ci suñu bët yi yëpp bokk nañ ci loolu yooyu yëpp dañuy agir ci biir àddina bi sa biddiw yi bokk na ci biddiw yi itam ku ne xam na boo demee astrologue yi dinañ gis ne rapport yi nga xam ne am nañ diggante nit ñi ak biddiw yi biddiw bu me bu biddiw bu mel nii dana am taw biddiw bu mel nii taw bi du mel nii biddiw bu mel nii dana am lu xew ci àddina bi ngelaw dana fa xew wala nangam dana fa xew biddiw bu bu génnee nii ren àddina bi dafay métti dafay naqadi biddiw bu génnee nii feebar dafay bëri loolu yëpp boo demee ñi nga xam ne ñoo xam xam-xamu biddiw ñu ngi ci te yooyu yëpp ay mindeef yoo xam ne mindeefu yàlla lañ yàlla leen bind ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf bind na ci diggante asamaan ak ay suuf ay mindeef yoo xam ne ay jinne lañ yoo xam ne ñoom tamit ah, ñu fi nekk ak ñun ci kaw asa ci diggante asamaan ak suuf ñu ngi fi nekk ak ñun ñu ngi def ak ñun waaye ñoom barab bañ nekkee suñ bët mënu faa àgg ndax dafa àgg dañoo nekk ci quatrième degré bi nga xam ne dafa am neneen luñ fay gisee ñun suñ gis mënta passé quatrième degré bi rek jëm suuf foofu la suñ gis mën a leere waaye boo nekkee ca kaw daraja boobu nag sa gis dootu mën a dem fenn su ko defee nag jinne yi séparage boobu la dund moo tax mënuñu leen a gis waaye nag ñoom am nañ daraja yoo xam ne mën nañoo xotti loolu am nañ darajaay doole mën nañoo xotti gis ñu moo tax yàlla wax na ne ñu ngi di gis yéen fu yéen leen gisewul euh, euh, su fekkee loolu nag ñu xam ne gannaaw mbindeef yooyu fi mbindeef yooyu am na ñoo xam ne yàlla may na leen ci seeni ci ay mayam ndax nit ki yàlla ngi def ci moom lu nekk nit ki lu nekk la nit ki nit la waaye leneen leneen leneen lu nekk ci biiram de mën naa nekk nit kese kese waaye mën naa nekk nit koo xam ne nit ku ordinaire la mën naa nit koo xam ne nit ku supérieur la koo xam ne kenn ni moom la te loolu yëpp fi muy feeñee mooy li muy jëflante ak àddina bi nga xam ne mi ngi ci ak lu nekk ci biir àddina bi de am na ñoo xam ne ñu ngi gisanteeg mbindeef yooyu yàlla may na leen kattan boobu ñuy gisanteeg ñoom di jëflanteeg ñoom am na ñu ko amee côté bi am na ñu ko amee côté bële <clears throat> am na ñu ko amee ci côté ñaan ak julleeg toroxlul yàlla waaye am na ñoo xam ne ñu ko amee ci côté xam-xam ak gëstu xam-xam ci nañ ko amee ba nga xam ne dina ñuy wax fi mu nekk nii ne technologie bii xew ci àddina bi yëpp ci dëgg-dëgg ñuy ne bàyyi ko ci doomu aadama yi mais ci jinne yi da bàyyi ko ñoo ko jàngal doomu aadama de. ndax ba léegi doomu aadama yi di am am euh, tatawur ci technologia ba léegi jinne yi ñoo leen ci jiitu ñoo leen ñoo leen ci raw jinne yeeg seytaane yi ñoo leen ko ëppale ba léegi <clears throat> ndax euh, nettali nañ benn waay nekk këram ci guddi mu dégg ay yu yëngatu ci biir jardin am mu génn di leen seet dal di leen seen ba mu ne seenee daw jëmali leen génne fetalam di leen fetal fetal fetal fetal ñoom faale wuñ ko fa faale wuñ ko ñu ngi def li ñuy def rek fekk am na loo xam ne moom lañ bëggoon a jël si ci tool boobu pour yóbbu ko ba mu ko defee mu fetal fetal gisuñ ko mu ne kenn ci ñoom rek moo def nii baaraamam rek mu daan tëdd nelaw gaa yi def lañuy def ba dem ba dem ba fàtte ñu mu door ñu door a eewu jóg de mu ne lim fàttaliku ci gaa ñooñu mooy nit lañ ñoo xam ne seen loxo yi dafa gudd ba romb seen oom yi seen loxo yi dafa gudd ba romb seen oom yi seen taxawaay bi itam taxu koo demee taxawaay bu gudd e, e, ñoom gis noonu la noonu lañ mel am na nag mu ne loo xam ne jël nañ ko ca tool ba yóbbu ko waaye fàtte na lan la mu ne bon nga xam ne bon extraterrestre yi ak yeneen ak yeneen mbindeef yoo xam ne du ay extraterrestre ñu ngi fii ci àddina bi te ñoom ñëpp ñu ngi jëflanteeg nit bi ñu ngi jëflanteeg nit ñi te ñoom ñëpp nag yàlla moo leen moom moo tax mu ne lillaahi mulku samawaati wal ardi wa ma baynahuma ak nekk seen diggante de di nekk ci diggante nit ñeeg asamaan yeeg biddiw yeeg yëpp yëpp yàlla moo ko moom de waxu moom yàlla moomu xadiroon aji xattan la moo laa kulli shay'in ci lépp def de yàlla moomu di def loolu yàlla moomu nga xam ne moom moom yëpp lu nekk attan na ko de lu nekk mën na koo def de allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim boo indoon kaamil dañuy jàng kaamil tëjee ko suñ dars bi allahuma ah, indi cheikh bi ñes gumba na nga def dama rek alhamdulilah <laughs> <laughs> ñu ngeen di ko. yes yes yes. alhamdulilah alhamdulilah.